Allahu Akbar.

Mansour Vai, é contigo. Levanta. Cheikh Ndiaye laa tudd. waaw yow yaa yem ci accident bi noonu mu defee. Euh, doon génn. léegi mu génn waaw Mercedes bi mu génnee jàkkaarloog 4x4 xam naa boobu la mënatut a taxaw nag mu bëkkanteeg oto bi am na benn oto mburu bu newoon seen kanam dal sa ginnaaw bi. Mm-hmm. li ñu nekkoon ci Mercedes bi ñëpp wàññeeku ñëpp a moom ñett ñee wàññeeku mais kenn ki ma fi bàyyi woon moom da doon yuuxu moom boobu seddagul woon côté bii la jógee côté Tivaouane oto bee yoon Dakar. dem il paraît que ay moodu moodu parce que fekk nañ ci seen poche ay billets euro bi dollar. ah ma ne loolu xoolu ko moom. Hmm. ñëw rek yem si loolu après ma dem. mais choc bi métti na waaw métti na moom. dafay faral di am accident yoon bi fii. waaw ci diggante Ndiob ak Ndiassane. bari bari na fi trop moom. fii fi mooy fan. fii nii Ndiob Ndiob Ndiob. Ndiob waaw. Are Ndiob Ndiob. Ndiassane a ngi nii ñun mooy sunu arrêt dëkk daal uh-huh, aa fii mooy arrêt Ndiob boo jógee croisement Ndiassane arrêt Ndiob après parce courant boo nga siy teg uh-huh. voilà moom waaw waaw fii son yi rek yàggul bari ki de moo njaay uh-huh. boole ko fii yëpp gis nga ay xot yi nga fi gis gi yëpp ay stock moo ko waral fii moom dañ fi war a def nga ndam maami doo daan ci virance bi ndax nit ñi duñ xam nu ñu fii génne buñ ñëwee fii lañ dàqee mën a doublé te xam nga tamit fii virance la waaw dañ fi war a def doodaan ngir yàlla nan ñu fi defal doodaan xale yi jéggi tamit di dem école yi loolu yëpp xam nga wooru te seen baa ngi nii voilà après diggante Ara Ndiassane daal ba ba pasu courant boo jeen war nañ ñu fi mën a defal benn doodaan ñoo ngi koy ñaan Aram Mbow